fu ko mënti nat ci xat-xat weesu na ko embouteillage bu tar bi ñu nemmeeku sa rond point case ba sa parcelle Assainies gannaaw liggéeyum BRT yi gàllankoor dem ak dekk gi. presque ça fait une heure de temps maa ngi nii ci rond point bi mënuma génn bi may ñëw aussi j'ai fait presque une heure de temps aussi pour un laps de temps bo xamni ni mënoon nañ ko jall mais c'est trop dur. embouteillage mom metti na waaye xam travaux yi la rek xëy peut-être. fii ak ay fan yu néew mu xaw a tane waaye metti na moom lu ci mën wax. kenn mënul liggéey kenn mënul dem kenn mënul dikk ñëppay sonn vraiment c'est pas c'est pas rentable quoi. fii nii mën nañu fay def ay waxtu avant ñu jóge fii nii bilaa walaay te xoolal ñun douze scooter la ñu yor te avant ñun daaw ñu taxawaalu fii sax lu mu xat-xat dañ daan dem mais gis nga léegi dafa dañu taj. diggante bi nag yàgg naa fi mënu xayma exact ñaata waxtu la. ma maa ngi ba Hann Marinas ban heure laa yegg. amul benn issue pour génn yi aussi riverains yi ñoom dañuy seen mbedd yi da ngay dugg si benn espérant que di nga mën a génn ñoom ñooy gas ay pneu def ko ci et que benn moment la boo xam ne ñu war nañ ko muñalante quoi. riverains yi maanaam askan wi dëkkee sa boori kaas ba ñoom itam mucc ñu si jafe-jafe liggéey bi soxna si di kenn si ñoom di ko dëggal. nit ñi mënuñu dem nit ñu mënuñu dëkk. doo am oto doo gis oto oto boo jël mën la dama dem côté boobu ñun ñu dëkk fii ñëpp ci kaw tali bi dañu obligé suñu oto yaa ngi ñu jël ñu dénkaane ko ci biir am mooy wala ci yeneen endroit parce que mënatuñu ko gaare suñu bunt yi ndax euh, tëj nañ tali bi amuñu fu ñu fu ñu teg oto yi léegi da ngay obligé booy dem dangay ngay dox ñëw ba nii ci case bi pour nga mën a am transport booy ñëw ak say bagage ak lu mu mënti doon aussi fii ngay wàcc pour dox dem sa kër. tali bi depuis ñu lancé seen travaux yi ba war ko commencé ba tey dañu gis ne vraiment demul daal dafa affaire yi dafa mel ni dafa nekk au ralenti. d'habitude ndox daanu fi taal te léegi ndox day dugg ba suñu biir kër mu nekk loo xamante ne lii ku ñu ci daal vraiment ñu jël. anam gi ñu amalee liggéey gi waaye jëfandikoo yi doon na lu ñu ŋàññ waral ñu sàkk ñu soppi waxtu.

le reste ñu bay defe na loolu loolu loolu mo doon gëna may nit ñi tuuti ki ndax liggéey duñ ko doon jël guddi mom peut être yoon yi dina xaw neex ñu lu réew yu bari ñom gis na lu ci ëpp guddi gi lañuy ñuy liggéey quoi mais heure bi nga xam ñepp ñëpp ñu soxla di dem di dem di dik ñu bëgg a def travaux xam nga day doy war quoi lo moo tax affaire bi jaxasoo gannaaw ñaari at bi ñu tàmbalee liggéeyu BRT bi dalé ko way ba rond point padois daanaka fépp la ñu amal liggéey jural jafé jafé yu metti askan ñu fay jaar am sax ñenn ci ñom ñu xamné ni waxtu wi ñuy def si embouteillage yi moo ëpp seen waxtum liggéey